parler des 50 ans de Omar Pène, 50 ans de carrière, ça se fête. Donc on est prêt pour vraiment accueillir le public, le fans club de Omar Pène pour ce samedi qui arrive. foo mënta nekk ñu ngi lay woo affaire fan lay xewee fii ci suñu esplanade bi nga xam ne la ñuy wax la 2STV Omar Pène nag mooy fêter ses 50 ans de carrière. ñu am benn émission bu spéciale tey dañuy waxtaanee un peu avec le fans club de Omar Pène muy Af Sud fekkee lépp. ñu tànn ci quelques personnes rek pour mën a waxtaane tey kan mooy Omar pen ak ndaka lañ def ba créer fans club Omar pen muy af sud xam ngeen ne jamono ji répétition yi mu ngi mu ngi enjoy gars yaa ngi koy waajal c'est vraiment la fête dañu dugg ci biir xool gars yi naka la ñuy waajalee ah musiciens yi laay wax de naka la ñuy waajale spectacle bi nga xam ne ne ça va être énorme spectacle de ouf avec bien sûr les musiciens de Omar Pène et le Super Diamono on est bien sûr tey nag dañu xool dañuy xool rek rapidement comment les musiciens répètent tout simplement les meilleurs tubes de Omar Pène et le Super Diamano. On regarde rapidement. Voilà donc, euh, on est en direct à la 2STV. on est en train de voir les musiciens en train de faire leur répétition gis naa fi euh, Zenoul ah koo xam ne aussi kenn du ko présenté euh, sénégalais des musiciens bu ñëpp xam ma xamee ko woon ci euh, Alioune Mbaye Nder et le Sept Sima Group tey mu ngi ànd ak Omar Pène di mag aussi ah Super Jamono démb nag j'ai vu que ne c'est le patron du Super Jamono je vois aussi Mamadou Sow aussi qui là donc guitariste on suit c'est en direct à la 2STV un plateau très spécial di pour ñu ñëw vraiment ce samedi pour fêter les cinquante ans de Omar Pène Voilà, si vous le rejoignez à l'instant Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux, bien sûr, à suivre la 2S TV. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. C'est la musique, c'est la première chaîne privée du Sénégal. Là, nag xew-xew bi xam ngeen ko mooy samedi. sous l'égide du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, monsieur Sow, mais sous le parrainage de monsieur Elhadji président directeur général de 2STV yi nga xam ni nag dafa yàgg ak Umar Pen gunge Umar Pen nekk doomu ndeyam ngeen koy dégg mu naan ko doomu gaynde Njaay doomu gaynde Njaay du ragal dee boobu ba tey ñu nekk ci ba na cinquante ans de musique le tapis rouge entrée plat de résistance dessert une si grande fête mais aussi des feux d'artifice tout se prépare pour le 6 janvier dîner de gala bu mel di waxtaan Nous sommes en direct, nous sommes en direct à la 2STV, en train de voir les musiciens du Super Diamono font de la répétition ici. Alors, léegi balaa ngeen di dem balaa dañ leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm on voit que ne super jamono ils sont prêts pour accueillir le public muy samedi prochain cinquante ans de carrière c'est vraiment important alors Dembel yow kenn du la présenter Sénégalais ndax euh, bu ñuy wax super jamono kenn mënu la bañ a citer alors ñu ngi lay ziar dalal fii sur la 2STV on est en direct on est suivi partout dans le monde ñëpp xam nañ ne xeexoo bi samedi la mooy les cinquante ans de Omar Pène comment vous le préparez en ce moment waaw maa ngi lay nuyu raxu euh, di kontaan ci sama baat nag dafa dee moo tax wax bi depuis une semaine j'ai une ex ex sama baat dafa dee daal mais bon ñi ngi kontaan ci euh, ci ñi ngi ci préparatif yi comme ni ngeen ko gisee depuis quatre cinq jours ñi ngi répété pour ci euh, wax public bi benn spectacle boo xam ni dina am solo daal moo moo ngeen di fekk ñu def nii pour peaufiner répertoire bi voilà dinañu mën a déglu ay morceaux yu yàgg wala dinañ déglu ay semi nouveauté wala ay nouveauté kese la ñuy am samedi. waaw xam nga non non parce que xam nga grand bi sooy sooy sooy cinquante ans am da ngay jéem a fexe cinquante ans les morceaux phares mënuñu ko sax parce que ba grand bi la a plus de cinq cent morceaux le temps d'une soirée mënuloo jouer cinq cent morceaux. donc euh, fan fans yi ñuy wax ni bon album bu bees bi moom qui comprend six titres dañ koy jouer intégralement boole ci ay morceaux yu yàgg di gis fii ñu bind ci ay. jamono ay tiki tiki ay dorobe ay jaaxle ah ak yooyu ay saay-saay donc euh, yooyu ñu nga xam ne pour la plupart fan si ñoom ñoo ko Afsud voilà pour euh, comme feetu Afsud la aussi euh, ak benn morceau boo xam ne moo koy tëj bu bu tudd merci bu nga xam ni moom dafay war dafay jaajëfal ñëpp ñu nga xam ni jàpp nañ ci carrière am moom mooy fans yi ak ses amis ak ak yow ku mel ne yow ak yéen ñëpp daal moo tax mu leen di wax merci quoi moom lañ koy tëjee pour wax yéen ñëpp Euh, en apothéose merci beaucoup. voilà alors lan ngay wax sénégalais bi nga xam ne ne mu ngi ñu seetaan il est un peu naan ma ñëw bu ma ñëw est-ce que wala loo koy wax. waaw ñëw bi dafa di war sax parce que Omar Pène dafa bokk ci euh, ci développement ndaw ñi ci seen ay conscience ak yëpp au point que ak mag yeeg yëpp parce que ñu bari ñu nga xam ne dañu bokk moom âge léegi mag lañu. Mhm. dañ doon déglu ay chansons am ñu nga xam ni ay chansons am gindi ci àdduna. ah ñu nekkoon ci safaan xëy na ñu ñëwaat ci affaire bi parce que moom ay thèmes yooyu rek la doon mhm. ce qui fait que ñoom war nañ mun a ñëw parce que c'est une manière pour euh, toute la population sénégalaise de lui rendre hommage sargal ko njukkal ko pour wax ko ni ko merci pour tout ce qu'il a fait pour la musique et pour la culture en général et pour le Sénégal en entièrement quoi vraiment. xam nañ ne mélomane nga musicalement tu es énorme am na looy représenté ci réew mi qu'est-ce qui fait la durée de Omar Pène. waaw Omar Omar Pène nag xam nga duram moom soo ko sax du ko xam <laughs> parce que bon moom il fait il vit la musique euh, instantanément da koy jouer nii rek amul benn il n'est pas cloisonné quoi xam nga quand tu es cloisonné tu te fixes des limites. Mhm. moom il ne se fixe pas de limites. moom il dit qu'il est très ouvert tant qu'il vit moom tant qu'il a la voix donc il peut chanter c'est ça ça loolu tant que yàlla yàlla mi ngi leen ak euh, volonté de de chanter donc euh, soo amee cent ans sax da ngay da ngay way quoi. donc moom loolu la gis quand certaines personnes leur lui ont demandé à quand la retraite mu leen man musicien amul retraite man damay weer tant que j'ai euh, la santé am possibilité way damay way voilà tey jii noo bi fi nga xam ne ñoo fi nekkoon di jouer ak waaw ki nekk fii sama euh, càmmooñ moom mooy wax Raan en très bon clavier mhm. euh, qui a fait les beaux jours de beaucoup de de ténors ici ay pa Cheikh a joué avec Koumba Gawlo Thione sek mhm. ak lu mu lu mu joué dafa bari mhm. bon kii batterie Paplay. Paplay Paplay moom c'est à l'origine un batteur de jazz euh, vraiment qui a beaucoup fait dans le dans le de jazz mais bi ñu ko woowee pour mu ñëw il n'a pas eu de mal parce que moom ja li mu wax ni ci kii dafa jàpp super jamono dafay épouser ay contours jazz yu mu am ko moom. Mm-hmm. moo tax il n'a pas eu de mal ça ça lui a ça a fait plaisir de venir jouer avec nous donc euh, gis nga mi ngi ci biir cent mi ngi mel ne def na fi cent ans. c'est mooy Alioune Seck moom sama xarit la moom waaw Assane Ndiaye. Ah, ah, Assane voilà Assane Ndiaye moom jeune Assane Ndiaye moom mooy xorom jeune ak ñëpp waaw donc c'est un super bon euh, percussionniste ah, mi ngi ak super jamono de plus de quinze ans. ànd nañ moom fu nekk ci àdduna bi joué moom un peu partout mooy Alioune Seck niñ ñu ni ñu may xamee noonu lañ ko xamee muy joué ak di joué ñeneen di joué ay euh, El Hadj Diouf yooyu ak production yu bari. Omar Sow nag moom mun sañu ma ko présenter parce que Omar Sow déjà moom a njëkk Super Jamono moo ma sax jàngal ci yu bari quoi donc mën ak man ak moom avant ñëw Super Jamono sax joué nañ ci ay production yu bare bare bare bare temps wu euh, RM système Kumba Gawlo Cheikh yooyu avant ñuy ñëw sax Super Jamono aussi que Amady Silbé qui joue avec tout le monde. et cumulativement Super Jamono mi ngi joué ak euh, Sidi Diop mi ngi ah. joué ñëpp ñëpp lay joué ce qui fait que man comme ñemewu ma dama koy xëcc par force ñu ko kaay joué quoi dama koy xaw a napp tuuti quoi. yaay tonton <laughs> waaw donc mais mënul ma ko dara napp bi sax faale wu ma <laughs> kële nag mooy Zeynoul. non moom dama bëgg dama bëgg nga taxaw. waaw parce que gaan bële. oui gaan la gaan bu doy waar waaw waaw bu doy waar en fait dafa bëri faset et ba ma koy xam Thialoune mbay neex la te gañ naa gis muy jouer kon mu toog fii mooy wane ne lii lu ko ñor la. waaw parce que moom moom à l'origine bu ñu nekkee super jamono di jouer dem Saint-Louis dafa nekkoon prytanée militaire moom AET la donc euh, saa yu ñu doon super jamono mais il s'arrangeait boobu mi ngi toll comme benn béy bu ndaw. solo ñu il s'arrange à chaque fois su suñu jeu mu ñëw taxaw ni grand dama bëgg bëf ma ne ko mais booy taxawal ne quoi léegi loolu daf may rappeler loolu tout le temps grand dama doon ñëw nga ni ma taxawal na léegi nag maa ngi joué ak yow c'est vrai que à l'origine bëggatul woon joué sax parce que bon mi ngi dans ses affaires bon léegi nag mais xam nga super jamono moom quand tu fais ka fa mel ni Ablaye do Ablaye Wade doon wax quand tu es au rek mm. yaa ngi ci quoi moom soo nekkee jamono yaa ngi super jamono moom super jamono la nekk Euh, bi ñu ko nee ñëwal joué mu ne ma mais grand damay ñëw joué. noonu la ko defoon noonu la ko Ousmane Wade defee noonu la ko ñeneen defee nga xam ni ku xalaat ni sentir nga ñëw super jamono joué super jamono Omar Pène moomu ko Dembel moomu ko Gabar moomu ko xam nga ñu ko moom. ñëpp ñu ko bëgg ak ñëpp ñu fi mës a nekk. ku fu ñëwoon tey ni Dembel damay joué kan. national la. Seenul Doudou Konaré euh, ñëpp ci lañ bokk donc loolu mooy super léegi comme que ñu ngi en direct euh, dañ leen di bàyyi ngeen répété euh, bëggoon naa musicien bu nekk mais ñu benn affaire dix secondes par exemple ku mel ni Ran jalo won ñu benn Ran Ran Diagne pardon pardon pardon pardon Ran Diagne <laughs> Ran excuse-moi Pape Alassane voilà c'est ça Ran xam nga dama daan tàmm dégg Ran Diallo moo tax moo tax Diagne la waaw jazzman la voilà c'est ça léegi Ran Euh, c'est pas grave <laughs> ran may benn affaire Omar Pène bu ko bu ko yi déggee rek am lu leen fàttali ci clavier bi nii benn instrument bu sew rek bu 10 secondes xaw ma loo ñuy jox un de très simple loo neex rek benn affaire Omar Pène rek quoi. say waaw saay saay léegi nag yow <laughs> dembel duñ la duñ la seetaan <laughs> yaa xam waaw euh, morceau bi nag euh, exclusivement suñ ko joué bokk loon ci répertoire bi c'est en hommage à El Hadj Ndiaye bon moom nee Gaynde Ndiaye la bon xaw ma ndax Gaynde Ndiaye yow Jóob lay sant ak gabaar quoi en général bukki ñoo sant Ndiaye mais moom nee na moom El Hadj Ndiaye la nit moo tax ñu tëgal ko En tout cas, merci beaucoup Dembel. Alors, toi aussi, un petit truc parce que ni ñi koy laajte en fait, vu que ñu leen fekk ngeen di répéter, ñu am benn affaire bu sew en tant que batteur. Loo ñu jox bravo c'est le live <laughs> on est sur la 2STV ñu ngi euh, fekk musicien Omar Pène di donc ñu sàcc si quelques plaisirs rek quoi xam nga ni lii ku ko déglu xam na ne samedi ça promet on va vraiment danser et puis si vous êtes mélomane venez nombreux ça va être énorme Alioune Seck plaisir xamante nañ de xanaa ma dem ngi wér rek bravo Alioune alors Amady comment vas-tu ça va. très bien alors ñamal ñu benn affaire bu gaaw rek ñu bàyyi leen ngeen liggéey. Ça, c'est le maestro, grand Omar Sow. <laughs> beaucoup. Zenoul. <laughs> Ça, c'est aussi le maestro. Alors, fais-nous plaisir. Mamma Mia. Merci beaucoup Zenoul. Moi je vous dis merci, la 2S vous dit merci, le public vous dit merci. Notez bien, c'est ce samedi qui arrive, ans de carrière de Omar Pène, le super jamono, ça se fête. Venez nombreux, ça va être une nuit explosive. Foo ay mënta nekk rek ñu ngi koy woo mu mën ànd ak ñun ñu ne Omar Pène merci Omar Pène aussi wax son public merci. Alors ce qu'on va faire dañuy xool benn portrait Omar Pène. ah durant toute sa carrière li mu jot def yëpp. ma dellu ak yan dem ci plateau ba toog ak waa fans club Af Sud bu Omar Pène et le super Diamano on regarde le le portrait de Omar Pène. Omar Pène ngi juddu 28 décembre 1955 ci Sénégal ci capital bi di Dakar mu yaroon nag ci famille waa këram ca quartier bu ñu naan Pikine mu doon loo xamante ni dañ koy topp ci religion musulmane ci aaday murit mu juge fa dem ci kër papaam papaam moomee doon liggéeyee ci université dëkk ci quartier bu ñu naan jëppal kër ga nag neexul woon loolu ndax ñàkk déggoo bu amoon ci digganteem tàntaam loolay waral sax mu jóge ci kër googu bu muy am fukki at ak ñett dakkal jàngam ba mujjul am sax li nga xam ni moo di entrance ba mujjul am li nga xam ni moo di COP gannaaw loolu mu dund ay at yu metti ndax fu nekk jot nañ ko fa xajal gannaaw loolu nag mu dund lu metti muy débrouillé wu ngir mën a amal boppam lu koy téye doon nekk lu ëpp ci mbedd mile di foowee li nga xam ni moo di football tax sax mu yaakaaroon ni mooy doon li nga xam ni moo ko mën a génnee ëllëg ci concept ca jamono yooyee ci 1972 la doon foo di wayantu musicien bi di la Diagne dégg ko ci la ko woowee ngir déglu ko ndax waxtu boobee quatre orchestra dafa soxla woon ay membres ñu jël ko ci nag mu nangu li ni mel ñu tee ko fa mu intégré groupe bile ginnaaw nag bi mu fusionné woo ak Tropique mu intégré group boobee ca 1900 ci 1974 mu fusionné wu ak Tropical Jazz ngir joxe li nga xam ne moo di groupe bi di jamono ginnaaw nag bi groupe bi amee ñaari at génnee benn album ñu jël lépp soppi tur bi tuddee ko super jamono mu jiite ko mu doon tur boo xam ni amul ku ko xamul ci Sénégal ci atum 1970 yooyee ndax dimension sociale bi nga xamante ni woykat bi am na ko contribuer bu baax ci li nga xam ni moo di seen musicale sénégalaise bile ci lu ëpp fanweeri album ba tax chanteur afrofeeling bi ñu considéré ko comme kàddu ñu amul baat tax mu consacré carrière am yépp ci Sénégal ba cim atu 2000 sax la commencé di génn dem bitim réew di xool nu mu mën a jaaye musigu Sénégal ci 2024 bi nag Omar Pène day célébré juróom fukki atu carrière musicale Rebonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est sur la 2STV, l'émission très spéciale, 50 ans de carrière de Omar Penn et ça se fait. Et puis on est très ravis, heureux d'être là bien sûr. Alors c'est le fans club de Omar Penn, AF Sud, ah ñoo toog ci plateau bi ñu waxtaanee nag. fans club bi fan la jugee naka lu juddoo la moo tax cette fidélité là li dañ ci waxtaanee ak ku mel ni euh, si Cissé nga xam ne ne kenn du ko présenté aussi euh, ñi nga xam ne bëgg nañ Omar Pène xam nañu kii mooy kan ndax boo xoolee moom bokkoon ñi nga xam ne ne ñoom ñoo ko taxawal foofu ca bitim réew am mbégte loolu di ko recevoir ci plateau bi Barezi comment vas-tu? je vais bien maa ngi nuyu téléspectateur u 2STV yëpp ñi nga xam ne ñu nekk fii ci dëkk bi ak ñu nekk dans la diaspora di nuyu tamit sunu gars yi nga xam ni ñoo ngi ci hôpitaux yi euh, di ñaan suñu borom may leen wér. Mhm. di nuyu ñu nekk ci prison yi di ñaan suñu borom teggil leen naqar bi. donc voilà je suis là en tant que fan du Super Diamono euh, Oumar Pène ñu yàgg ci là on prépare les cinquante ans du Super Diamono. je suis très content de partager le plateau avec vous Rakhou. c'est réciproque mon frère Barre Cissé elle s'appelle Fatou Sy Diène Fatou si ñu ah. ngi lay ziar ñu ngi lay dalal ci plateau bi. ñu delloo ziar. di la ça va ñuy sant yàlla bu baax. di la souhaiter bonne heureuse année 2024 bi di ñaan ñu dugg ci at bi ci jàmm asalaam génn ci jàmm di am contentement pour ñëw tey ci plateau bi pour suñu fans Oumar Baye Pène c'est ça et 50 ans yaa ngi koy waajal waaw 50 ans yi waaw ñu ngi koy waajal. incha allah ci yéenu Afsud ñu ngi koy pare. waaw ñu ngi pare parce que tey yàlla fi toogal. <laughs> <laughs> ñu ngi pare daal ñun ñëpp ñu ngi pare incha allah. très bien Fatou Sy en tout cas plaisir d'être d'être là aussi à tes côtés je suis très ravi. merci beaucoup ah lui c'est le colonel c'est le maestro Pape Thioune <laughs> Pape maa ngi lay ziar. ñu ngi lay bëggee. mon frère aussi. naka nga def. sant yàlla alhamdulilah. bokk ci ñi nga xam ne ne ñoom ñooy les fondateurs du. fans club Oumar Pène di af sud ñu ngay dalal ci bi waaw maa ngi am mbégte ñëw nekk fii ci 2STV ak yéen di wax ni nag tey jii li ñu fi teg moom mooy Oumar Pène tout d'abord je voudrais rendre hommage à cet homme au nom de l'AFSUD di ko wax déjà joyeux anniversaire parce que ñu ngi dégg nii y juste une semaine muy su muy def anniversaire am 28 décembre passé di ko wax aussi nekk ko on est très fier de lui on est trop content même que muy fête tey cinquante ans am parce que c'est pas cinquante ans c'est pas c'est pas c'est pas permis à tout le monde ans de carrière du lu ndaw c'est une vie non c'est une vie c'est et franchement c'est vrai que Omar Pène c'est un panafricaniste mais aussi c'est un défenseur par exemple de la jeunesse il en a fait avec des thèmes comme ay chômeurs ay mois monsieur étudiant. des trucs comme étudiants mais tey jii bu ñu ko doon collé benn étiquette dañ naan le monument de la musique sénégalaise donc au nom de l'AFSUD moi je voudrais dire à Omar Pène merci et grand on très content tey jii comme ni mu ko waxee ci AFSUD bi moom boo ubbee xolam ñun ñoo ci ne ñun aussi boo tijjee suñu xol moom moo ci ne. très bien macha allah merci beaucoup yow aussi euh, suñu waxtaan dina gën a yaatu. Mhm. ndax li nga yow en fait Afsud da nga cee def lu am solo. Mhm. moo tax sa toogaay war a nekk fii donc dinañ ko gën a yaatal bu ci kanamee kii nag moom kenn du ko présenté Sénégalais yi ndax artiste la ndaanaan la euh, yóbbu na musique partout dans le monde euh, mu fekkee jamono. ndax salaam bu ñu koy wax ñu bëri dañu yaakaar na ci Lemzo jamono la tàmbali alors que c'était bien avant parce que mu ngi woon ca super jamono salaam Diallo tey mën nañu wax aussi le patron du Nokos Band tey dafay toogee comme ki nga xam ne ne nekkoon na ci super jamono mën wax aussi relation yi nga xam ne moom la am ak ki ñuy wax Omar Pène salaam ñu ngi lay dalal ci plateau spécial. jërëjëf Abdourahmane di jërëxu maa ngi lay nuyu di nuyu waa 2STV di nuyu ñun seetaan ñëpp. di leen ñaanal gudd fan ak wér ci barkeb Serigne Saliou Mbacké di nuyu mon frère Barézy di nuyu faatu Kiné di nuyu cuun mi nga xam ni euh, moom fekkee naa lu bari ci ay débéem ci super jamono Omar Pène nag kenn mënta wax ci moom ndax géej la muy ku baax di ku gore waaye tubaab daf ni derrière un grand homme il y a toujours une grande dame soxna Banna Ndiaye Njaay may sa ñoo ngi koy gërëm di ko sant jigéen ju mën a muñ jigéen du bëgg jëkkëram muy neex di metti mi ngi ci ginnaaw bu jëkkëram ba tey mi ngi ak Omar ku jara sargal la man du ma sargal grand bi parce que grand bi self made man la booy Pikine la dem ba nekk booy international mais loolu yëpp boo koy def dafa am ku nekk ci ginnaaw soxna lu am solo la donc man moom lay rendre hommage di la nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam salaam retenez notez bien la date c'est ce samedi janvier fii ci suñu esplanade bu des 2STV ans de carrière qu'on fêtera ici avec le public avec tous les Sénégalais nous vous invitons à venir nombreux faire la fête avec nous et dire merci à Omar Pène merci Super Diamono et puis Omar Pène vous le rendra ndax ni ko gars yi waxee am na morceau boo xam ne mi ngi ko tuddee merci pour vous ñi nga xam ne yéen bëgg Omar Pène donc euh, samedi il y aura beaucoup d'émotions et je le sens alors euh, di leen fàttali aussi bu fekkee da ngeen bëgg a dem jënd seen i billets numéro bi dama leen koy jox jël leen seen bic wala ngeen jël seen portable ngeen noté ko ndax li des ci place yi bëreetul ndax ku dégg la manière dont on communique on ne donne pas les voilà, on donne pas les prix, parce que c'est très limité les places ndax bu ñuy wax Omar Pène cinquante ans de carrière ñu indi ko fii c'est parce que vraiment les places sont très limitées dem leen profiter leen je vous balance le numéro profitez au note et et appelez ku ñuy wax Badou Ndiaye 77 657 47 74 77 657 47 74 li ma bëgg tey ñu waxtaanee balaa ñu gën a xóotal suñu waxtaan ak euh, AFSUD ak Omar Pène et le Super Diamono kenn ku ci nekk ci yéen comme ni ko salaam defee ngeen wax ma kan mooy Omar Pène tey Pape Thioune boo ñuy wax Omar Pène noo koy définir l'homme la personne. <laughs> alors Omar bon pour man déjà avant qu'il ne devienne mon mon idole c'est un grand frère. c'est un grand frère parce que man moo ma yar jëppal ma nekk xale bu ndaw ñu dëkk muy ànd ak sama mag bu ñuy wax Tafa Cuun papaam ak sama pap bokk benn fi ñuy liggéey muy université comme maa ngi koy dégg ci rajo bi sànq donc moom mag la ci man d'abord man déjà à l'âge de sept ans may seetaan super jamono Kër Baylo Diagne dans des donc dama yàgg ak super jamono donc dama yàgg ak Omar Pène Omar Pène nit la boo xam ni nit bu humble parce que xam nga humilité dafa am solo ci nit xam nga ngi naan waroon a def soo pee xaw ma je pas amu koog yooyu je ne sais pas jàngam sorewul mais tey jii Omar Ben bu làkkee tubaab gën a kii am na doctorat loolu yëpp dafa am lu ko indi parce que c'est un homme intègre mais nag comme liñ ko waxee ci dans son évolution ci ni mu màggee am fu mu jaar ci àdduna dafa forgé wu waaw am fu bëri ak lu bëri loo xam dafa xew ci àddunaam ba pare nag yàlla def kom ni ko salaam waxee mu dajeeg nag une grande dame c'est très important parce que soxna soosu man aussi yàlla def na ni xam naa ko moom mooy comme li wax rek c'est des gens yoo xam dama màggandoog ñoom. baax na tam nekk sama sœur di ànd ak moom ba mu nekk ak grand bi ma xam ni mu jàppalee grand bi parce que ku nekk da nga war a am wéeruwaay. bànn nekk na ci Omar benn affaire boo xam ne comme yaay la soxna la xarit la donc def na ci moom loo xam ne moom moo tax tey mën naa ne Omar Pène nit la boo xam ni sànq maa ngi koy wax euh, défenseur u jeunesse bi la comme ni ma la ko waxee tamit di def ay thèmes yoo xam ne sur l'Afrique donc nit la boo xam ne daal dafa gëm boppam loolu daal laa mën wax nit la boo xam ni gëm na boppam bëgg na boppam te aussi Euh, alhamdulilah rabbil alamin boo ko doon définir en un mot Omar Pène ban moo lay doon. benn benn rek. Hmm. un homme humble. waaw man humilité bi laa ko jox quoi. waaw la simplicité. et on dit que la simplicité c'est un art. absolument dommage que tout le monde n'est pas artiste. c'est <laughs> très bien merci beaucoup Pape Thioune alors euh, Salam loo bëgg a yokk foofu yow seen relation ak Omar Pène. waaw moom junj na wax ji. waaw Omar Pène. nit ku bëri kersa la d'abord tant que miinuloo ko mënoo ko xam c'est un très grand timide la majeure partie bu taxawee sur scène day bu yooyu day gëm lii ñu tàmm ñun muy baataree xamu ko sax Barzi mi ngi koy wax sànq boo ko baataree sax daf koy jaaxal moom mm-hmm. tellement que buy woy il se concentre sur ses chansons ba dafay gëmm benn ñaareel ba mu am lu am solo ci musicien muy partage Omar Pène moo nekk super jamono Ismaïla fekk ko fa mës ko déranger Moussa Ngom fekk ko fa mës ko déranger Mamadou may Maïga fekk ko fa mës ko déranger Baye Diagne di magu Lapa Diagne ñu bokk ndey ak fekk ko fa di aw di tëgg tumbaa mës ko déranger il partage toujours sans gêne muy loo xam ne bëriwul ci musique sénégalaise. dama man je bien mon mot. ndax man ñoo ma yar. suñ doon toog di répéter morceaux yi ngay dégg ni yëpp man maa maay téye baradakaas di ataay di leen jox. bi nuy auditionné Moussa Ngom maa ngi toog. bi ñuy auditionné Mamadou Lamine Mayga maa ngi toog keroog maa dem ca bitig ba jëndal ko pinton <laughs> mu añee ko ndax boobu géejawaay la dëkk. Hmm. benn quartier bu nu wax Cheikh Wade. premier salaire bi nu ko fay. kere bi mu koy yóbbu seen kër ration la jënd muy un lundi maak moom ñoo ànd muy Mamadou Lamine Mayga moo tax ba muy woy ni sagin ginn sagin ginn salaam la dëggeen mooy sa yaay moo tax parce que moom daf ma fekk ma nekk xale ñun ñaar ñu mënoon tuuti ak Alsane Djigo macha allah keroog ba mu nee der yuuxu dafa am sëriñ bi mu njëkk a way fekk Aziz Seck nekk ab Baye Fall boo xam ne moom boo woyee keneen ku dul sëriñam moom ci saase lay arrêté may nga daal di lox daal di ba waxee sëriñam Aziz di ko ah, ah looloo mën a nekk donc <laughs> ay anecdote yoo xam ni tey ba buñ fiy jógee du jeex grand yi dañuy joué di waxtaan ci seen biir muy làppa Jean Alain Edgar Moustapha Fall Ibou Konaté Abdou Mbacké Lamine Faye Lappa Diagne Bob Sène ak ki nga xam ne mooy Aziz Seck loxo bi laa joué ma nekk bagagiste technicien buuba saw di ma jàng jàngal technique mhm. ma ma nekk kat fecckat mhm. Omar nekk ku baax koo xam ni maanaam amuloon star groupe la boo xam ni gars yi déggoo bëggante vraiment mhm. mën noo xuloo léegi juboo tu vois tax nag kenn du leen song loolu xuloo xuloo xuloo kenn du leen song de kenn du leen song am na un jour gars yi di joué ñu ne léegi y a trop de laisser sur euh, aller sur la scène nanu wut koo xam ni moom mooy nekk sécurité. Mhm. pour la scène. a Seck ni man la man maay sécurité bi parce que maa ngi sama kuuru Baay Faal <laughs> képp ku fi ta te waru fi yëg bu ñu naan a xaaj mais bu ñu wax loolu fàttali du Seck temps boobu yàlla na ko yàlla yëg <laughs> du Seck bëri na doole xees njool ta day ñëw rek yéeg seen bu jël seen mhm. mais dafa seen du Seck rek daal di commencé eh yàlla laay waxal musicien yi la waxal de kii sekk la sant sekk laa bu ñëwee dama koy bàyyi mu woy te bu dul dëgg bu nga def sécurité quoi. waaw yow man sekk bëri na <laughs> da day xam naa pen fa mu taw ma ngay ree donc gars yi musuma musuma moo tax man nii rek laa mën a mel. Mm-hmm. boo gisee xale jaar sama loxo. waaw waaw yàlla ubbi la man rek laa mën parce que ñoom ñoo ma yar. ñoo la yar le partage. am lu ñu la jàngal en gros. non c'est beau c'est beau on voit que une personne très généreuse aussi alors bu ñëwee ci Bargny euh, yow nga nekk fan si club. Euh, nga nekk fan déjà parce que da nga bokk ci fans club bu Omar Pène nga nekk bitim réew mais dis-nous déjà bonne relation nga am ak Omar Pène. bu ñu génnee ci wàllu musical wàllu fan euh, relation bi nga am ak Omar Pène c'est quoi déjà. bon Rakhou encore xam <laughs> nga nekk ak salaam day saboote quoi day yàq émission bi <laughs> xam nga. à part salaam non dëgg la non xam nga c'est que ñii dañu xam jamono. waaw dëgg la dañu xam Pape salaam ñii dañu xam. jamono fekkee ñoom dañu fekkee. Mhm. bon man Omar Pène yàlla dafa dogal benn instant moom a xool ba ci ni ma sama rakk nga. et yàlla sunu borom dafa def man j'étais fan j'ai des frères jumeaux su may mag ay seex lañ kenn ki nekk Youssou Ndour kenn ki nekk umar Pène boo ki nekk umar Pène nag après bon moom mooy su ñëwee teg ay son pen di ma wax ay waxu Bab Sène waxu Lapa Diagne autre chose parce qu'il travaille à Grand Dakar mhm. donc ainsi de suite noonu laa miine ba xam super jamono benn instant bi soo demee ma ñëw dëkk suma koñ ñu fa dëkkee man ak Cheikh ñuy màgg Sami Thioune ñu dëkk Grand Dakar donc ñun jamono lañ xam ba benn instant af sud am HLM Guédiawaye ki nekk actuel manageru super jamono ñoom ñoo créé Ousmane Faye mhm. man ak ay rakam ñoo doon ànd ñu créé AFSID donc ci noonu mais loolu lépp c'est pendant les années quatre vingt loolu lépp fan jamono fan jamono ba yàlla dogal euh, ak bànn comme ni mu ko waxee bànn voilà parce que bànn était plus soo bànn nga gën a xaw a gaaw miin ou autre chose voilà ba yàlla dogal benn instant assan bi muy ñëw France Euh, Assane Pène son fils Assane Pène son fils. Ousmane Faye boole maag moom Omar pen jox ma ko ñu dëkk. Assane on a habité presque pendant plus de dix ans. on a habité ensemble. donc euh, ci yooyu mais li salaam wax sànq Omar Pène boo koy xool ba ci ku bëri kersa. et puis Pène te donne des leçons de la vie Omar Pène boo ko xamee ba miin ko da ngay xam par exemple lim lay jàngal ci caatu mooy da nga war a muñ. comme li ngay wax parce que coup bu nekk da koy subir yu bëri da koy dal ci àdduna ay trahison ay yenn genre affaire. tu vois mais c' est boo xam ni benn instant mos na ñëw fekk ñu kaaw mu metti trop sànq maa ngi del salaam ñu ñëw wéet muy way af sud naan baara yaa ma bëgg wala maa la bëgg autre chose ma yegg sur scène. gars kii gars yi baat ree jox ko xaalis mais Umar bi woyoo xaalis dafa dafa reetaan. Hmm. ree ba pare affaire bi jeex mu ne ma mais soirée ma yow koy may xaalis man mii. te loo ko mën da koy may mais li xaalis moom da ko téye soirée bi jeex mu ne ma no ba yow yow ngay étudiant da nga yor dara. <laughs> xam nga jox la xaalis. non bëri baax na pourquoi ñun suñu ba léegi nii quel que soit ton statut ou mhm. tu es fan du super jamono parce que Oumar Pène tey fii soo gisee biram fay actuel ministre de de l'artisanat mhm. moo yoroon af sud Fatick Moussa Sy PCA Port député maire Parcelles Assainies ba léegi nii mooy Matam Ba PCA tout président af sud nekk nañ af sud parce que af sud mënoo fi jaay ni man am naa bii grade wala am naa bii rang Oumar Pène son entourage maître Lopé fa nekk. Mhm. Papa Yaya Thiam. Mhm. docteur Aboubacry. extra ça y a que des intellectuels autour de Papa Ngom Papa Ngom toujours donc avant nous n'avons pas le complexe ou en un moment par exemple de revendiquer que nous sommes des fans de l'art. Mhm. nous sommes des fans du Super Diamant et aujourd'hui quand on fête ses ans yàlla dogal benn instant ma ne ma ñun Oumar Pène vraiment suma grand frère la da lay conseiller entourage am tey ku ci mel ni grand Pacha bi may takk soxna. grand bondé ancien manager dañu bokk ci ndem ñaani soxna si donc Afsi Diouf ak Super Jamono comparé aux autres eh ce que les autres n'ont pas compris c'est une famille Salam bi Pape Thioune HLM la dëkk ñun ñu mhm. dëkk Guédiawaye mhm. et Dieu a fait que aussi en un moment même international en France ñun ñoo ko njëkk a créé retenez bien le premier président c'est François Mouilleron loolu ban année la Euh, 2002 2003. 2002 ok. waaw donc voilà et puis soo gisee yooyu yëpp dafay jaar Omar c'est plus que boo ko miinee pare et comme li nga comme benn qualité. Mhm. doo xam sax parce que kii Omar mun nga toog bu suba yéen ñaar kese ngeen wéet nii à part seetaan football ou autre chose <laughs> su lay wax sax du la xool am na kersa baax na et puis jàppewuñu comme ay fans club. il nous prend comme par exemple ses frères. da lay xelal ngeen toog chaque sujet mu metti mun la noo booy li leen ngeen koy gérer nii nii lay demee donc euh, voilà c'est pour cela aujourd'hui par rapport à ces cinquante ans nous dañ ciy jàpp tous parce que c'est une famille une famille on prend comme notre grand frère comme notre ami loolu laa seq ñoom Assane Pène la même chose tey Banna da nga koy xam xam toute sa famille Thiofi ses sœurs ses nièces waa c'est une famille quoi donc voilà yooyu la. là on voit Omar Pène euh, vu qu'on est en direct <laughs> sur l'esplanade de la 2STV donc dafa war a dem rejoindre tout simplement ces musiciens pour faire les répétitions. Euh, <laughs> donc euh, voilà donc euh, c'est Omar Pène <laughs> qu'on voit on passe grand li nga sañ sa dafa rafet mais comment mais comment félicitation <laughs> bon grand mais grand li nga sol dafa naan si mais grand mais cravate bi mu demee noonu ku takk cravate bi cravate bi ku ko takk non mais baan naa ko takk bi on vous honore là oui sûrement baan naa ko takk avant la fin de l'émission partira vraiment le, le, <laughs> ah, le, voir euh, en répétition. C'est voilà. un grand frère. C'est Omar C'est C'est une euh, famille. Voilà, Afsud noonu la demee très bien alors Fatou. yow yaay jigéenu Afsud aussi. yow euh, lan nga mën a wax ci Omar Pène ak Afsud. waa comme ni ko grand yi waxee ñoom ñëpp vraiment Omar nit la koo xamante ne ku simple ku respecte doomu aadama ku mën a ànd génération bu ñëw mën na nekk ak yow. puisque ñun boo xoolee Omar bi mu wee peut-être ay xale lañ te boo gisee ñu ngi déglu musique am yeete bi mu yeetee wax bi communication daal dina la yeesi lu bëri en plus da ngay déglu ay son da nga koy bëgg si ni mu mel comportement am doyloom yaroom ak kiwam daal vraiment ñun ñu ngi kontaan si loolu. Très bien. Alors, si vous nous rejoignez, merci d'être là. On est en train de parler les 50 ans de Omar Pène. 50 ans, ça se fête. bëgg naa aussi ñu xool benn élément. Euh, moom ak euh, Soda Mama Fall la woon mooy le retour de Omar Pène parce qu'il y a eu un moment il était un peu souffrant. donc nañu xool élément bi et puis on revient sur le plateau notez bien ce samedi 50 ans de Omar Pène fii lay xew esplanade bu 2STV daw daw daw leen gaaw dem jënd seen i billets ndax li ci des bareetul ça promet. On regarde l'élément et puis on revient sur le plateau. sama juddu Omar Pène ma Pène sa caam maali boog ma naar joor waaw ma jaara waatu Fatim caam dorobe bi ci isa ma naar joor galo ma naar joor sopp jaañ ma naar joor saalo biig seen maama nga tuube birima faa biram joor maamam ba nga ca na la ca nga la sukkaabe ngoon a géey mënu jëm ndóo may sa biige te kooku birima daroo ba baay baay góoraajaatu bànna njaay mu am mii jom ba mu toogee ba tey dawul kumba new yaay jom jala yóbbaale ak ngor ak taar ba maale bu tegg ndooy ak maale bu besa taal sa baay moom la nduppee ma jaara maamam waaye nag ma jaara sama baay bi ma jur maamam leen ko tudde kii ñu noon nga cëpp coman rek lay rey ci Ndakaaru maa dëkk moom cëmbul saala bi mi ci tuube eh, eh, déglu leen ma maali boog manaar jooro saala bi nga mi moom jaam ne ca mbul mbaar moo moom géwél ca sa géwél yaa nga mbul sa jaam ñaa nga mbul maay sa géwél birima faa biram joor sa maam la sukaa ngoone jeey ma jam doon bi may biige isa manaar joor atta manaar joor dala manaar joor ba sa jaam maa le boog manaar joor saana biige sa maam nga tuube sama ger laay woo maari boog ma naar joor ma jaaraay sa baay nguy ndaw ma amu caam may sa bàjjan ami caam may sa bàjjan Fatma caam may sa bàjjan hee baobee yaay sooda ya iso da iso de iso de wow wow mati sa jam mandam na ora iso mati ya kore ya wow wow ya iso de wanga dogude wanga dogude ya iso de mënuma def lii de waaw moom nag dafay daroobe fi ne maam gee soo bi kii boo demee mbul jaami géwalam yaa fa moo leen moom géwal yaa fa ci laa bokk ñoom lu xaw ca ñoom bopp nu rey suñu waa kër a koy jël man mii maay géwalam waaye meruma benn yoon nag fàttewuma benn yoon lii nag bu nu masaana woy sa maam rabal génn njaago génn tukkuloo bu ñu génn te émotion sincèrement c'est trop fort de voir ces images et ça parle réellement parce que là yéen a ngi dégg la maman Soda Mama mm. et puis aussi la voix de Mamadou Lamine Maïga euh, alors Barisi gis naa ne yaa ngi doon wax lan nga doon wax euh, sànq ci li nga jot a gis ci image yi euh, image bi c'est trop dafa dafa doy waar que feebar bi laa ma ama ñëw nit ñi wax nañ ci lekk dem nañ ba tàggee ko waxoon nañ lu ñaaw lu nekk tu vois et une fois ci yëpp moo tax retour bi muy ñëw sax tu vois bi desoon na mais sénégalais yi wane ak absurde nit ñi wane ni ñu ko bëggee affaire bi def ko loolu parce que moi je sais que juste muy ñëw bi muy génn nii euh, bis bi ma ko njëkkee gis peut-être dire dignité ak personnalité Oumar Pène mm. euh, parce que il était alité yàgg lool bis bi ma wooyee pour mu ñëw génn ak moom ànd mu am lu mu doon lijjanti biir Paris ma ñëw ànd ak moom mais bi mu génnee ma toog ay weer gisuma ko ak ni mu jeexe ak ni ko feebar bi def eh, moo lay jox courage moom suma rek ci loolu nag sa maa ngi sant alhamdulilah tu vois puis ñu dugg ci yeneen fàtte yooyu tu vois xam ni nattu la quoi donc bi <laughs> bi gars yi ak ni ñu kaa rek nga gis ak aujourd'hui fi mu ci jaar benn instant muy way ñu naan voix bi ñëwul dafa war a retraité autre chose mu travaillé ko aussi grand bi dignité bi ak personnalité bi quoi tu vois ak courage bi xam ni àdduna lépp moom da nga koy xeex. voilà eh bien c'est fort ces mots aussi Bargny Salam image bi lu lay jox. ah mais nga man soo ma laaj yi nag mooy da ma maa bëgg a jooyloo rek Salam Diallo mu jooy ci àddina <laughs> mais c'est vraiment émouvant. Mm-hmm. ku xam Omar ak timiditéem ak jomam ak ngoram nit feebar na fi ba sonn ba tàyyi ñuy wax mais toujours comme ni ko Bargny waxee rek jàmm ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. ça peut arriver à n'importe qui mais ci courage am ak ci jommam ak ci ngorom mu surmonter ko ba tey mu ñëwaat ba nekk au devant de la scène c'est très important euh, gaynde gaynde la doomu gaynde hmm. Njaay comme ni ko waxee rek gaynde la donc sondement ma def lu mag lu am solo asgor da nga koy kañ euh, raxu hmm. sunu réew mi jàmm rek moo fi mën a am hmm. gis nga ñun bi nekkee xale sama maam aji ndey ña kumba joor boo yeewoo ba mu teg dute ci kaw ànd bi jox la jël mburu jox la dalay kañ salaam jàll kër gi yaa fiy taaw bul tux bul sàcc bul fen sa maam diw moo jur diw demba daaru daaw nga njor nga mën dee la gëboon a mën ngoo a ba dijay kenn du càmmaa sàmba demba leen yow fi nga bokk waroo def lu ñaaw wër ñu la dégg ci lu ñaaw mm-hmm. toute jeune. Mhm. ay 7 ans 8 ans ñuy def loolu sa nopp. Mhm. dafa am fugg bu muy def. da lay forger mhm. aussi. ba foo génnee rek gaynde ngay doon. moom la solo maama def nii daal di jël ay sar rabal tagal ko ko. Euh. donc Sénégal ñun lu baax la lan xam. Euh. donc lii c'est émouvant. vraiment de ce suivi bravo. macha allah <laughs> macha allah vraiment bravo. vraiment image yi ça parle ah alors Pape yow it. bon man parce que c'était le retour de Omar Pène il était malade. ñëpp di wax lu nekk. mu ñëw au Grand Théâtre mu jooyloo ñi fa nekkoon ñëpp ñu gis ci quelques images fii ñun ñëpp a ànd jooy parce xam nga comme li ñuy wax rek gars yi li ñuy wax moom la ñuy wax rek grand bi li mu nekk ci ñun moo sori xam nga koo xam ni yow keroog jour boobu je me rappelle j'ai été interviewé mhm. gars yi di ma laaj man leen man su ma su ma meree j'écoute la voix de Omar Pène mhm. ma mere laa c'est la voix de Omar Pène mooy ay voix moo ma intéressé dama koy déglu mu am lu muy def ci man remonté ma su ma kontaanee c'est la musique du super jamono avec le bougarabu biit bi ma fecc dem ba jeex donc xam nga kon kooku c'est un complément nga mer ah, ñoom la nga kontaan moom la donc nit kooku li mu nekk ci yow ba yow aussi nga jël sa jeunesse man je peux dire que ni j'ai hypothéqué ma jeunesse en quelque sorte quoi pour Omar Pène man je devais faire moom bac ma ànd ak Omar Pène dem tourner imagine li ma ma war def bac Omar Pène laa ànd dem tourner kon xam nga kooku il est trop cher pour moi ah, Omar Pène li mu nekk ci man dafa rëy donc lii bu amee comme ni ko Barez yi waxee ndogal moom lu ma fu mu am rek da nga koy sant yàlla man mii di wax ak yow rek ni ma toogee nii rek bul xam <laughs> bul xam ñun ñëpp la tout un chacun. Mhm. mais la force c'est de pouvoir se relever. Mm -hmm. et il relever li ko Salam di wax dafa dafa non c'est un courageux. bari si ne da nga koy gis sax mu naan la mais booy sama alhamdulilah kii kii c'est moom moo lay remonté. te pourtant yow yaa ngi am yërmande ci moom moom moo lay remonté ba à la fin yow sama. Mhm. da ngay mujj. Mhm. je pas da ngay da ngay da xam ne lii la daal. dëgg benn image rek pour terminer ni ma xamee grand bi ñu daan nekk. football xam nga kuy football moom mooy kon léegi tu dépenses de l'énergie. ah fecc bi moom mooy c'est pas une bête de scène comme ay benn genre Alioune Mbaye wala kii ni ñuy feccee seen wala benn sama copain. non du moom mais quand même. dafa am benn image boo xam xam naa du ñàkk di ngeen ko gis Baresi moom mooy defe naa la woon. Mm. muy tëgg af sud bi mi ngi sol anangu bu bi. Mm. mais Alsaan kii di ko tëggal tëgg bu rëy mu fecc ba ah, daaneel. Aliou Aliou mais non gis nga image boobu dama koy sànni yàggul temps yi. mais dafa fecc ba daaneel. non rek gis nga loolu saa yu ma ko xoolee. waaw moom saxul sax <laughs> parce que ma naan lii ginnaaw bi mënatu ko def quoi. mais quand même rek. sant àdduna la. dañuy day dox. waaw donc de ce fait fi mu toll nii nii foo xam ne la moom c'est un sage. te ñun on est encore avec lui. Mm-hmm. te fu mu mënti toll ñun ci moom dañuy nekk ak moom ci lii mu nekk. <laughs> vous êtes les fans de Omar Pène ñu naan leen Af Sud. Mm. mooy def différence fans club Omar Pène ak yeneen fans club yi. ci yenn mm. yi qu'est-ce qui fait la différence. a <laughs> votre avis la constance. Mm-hmm. la ans de nos jours Af Sud di dund. alhamdulilah rabbil alamin dañ naan kon lu barkeel la rek. Mm-hmm. donc je me permets peut-être d'anticiper la question. nee nañu Omar Pène il fête ses cinquante ans. Mm-hmm. nous ça fait trente quatre ans on est avec lui. Mm-hmm. trente quatre ans yoo xam ñu ngi ànd ak Omar Pène et super jamono. parce que l'AFSUD a été créé un vingt cinq mars quatre vingt neuf. vrai que ñun ñëpp ñoo ko créé. et l'idée association. moom idée bon alors je bon on va essayer avec toute modestie c' pas parce que j'ai eu l'idée man parce que dañ nekk HLM di waxtaan ku nekk am xalaatu dañu war def lii ak lii. nous avions des grands frères yoo xam ni dañ nekkoon HLM créé benn affaire bu ñuy wax fan ñun ñu nekk ak ñoom ay booy après nag moment boobu ñun ñuy waxtaan suñu biir naan mais ñun aussi dañu war a créer bu super jamono ah di ko wax suñu biir noonu biir HLM man ak ay ñoom Mamadou Mbaye des amis qui sont là-bas ay paye yooyu mais loo gis rek dafa am nu ñu koy doxee pendant les événements wu naar yi mooy en 89. Mhm. man je me rappelle j'étais avec un jeune frère bu ñuy wax Abbas Meng. Mhm. ñu toog néegam le temps ñuy ataaya yooyu man ñu jéem a ñu créer Afsud du ko du ñu créer Astafurlah nu ma jël big ak feuille moom mi ngi attaaye ma ne léegi amicale des fans du Super Jamono mu nekk AFSD mais intonation bi ça donnait pas trop. Mm-hmm. je ne sais pas malaaka bi moo ñëw ci sama biir maayam ne ma takk ne ma jël uw super bi dugal ko ci biir ma dugal ko def ko mu dekk absurde ma ree ne Abbas xoolal affaire bi absurde mu ne ma nii ma woo sama gars yi ñu ñëw. Mm-hmm. <laughs> donc c'est ma proposé leen ko wax en quelque sorte loo xam ne la parce que avec toute modestie hmm. lu ma xalaat la exposé ko sama gars yi ils l'ont adapté euh, à l'unanimité donc il fallait maintenant créer quelque chose boo xam parce que ah, man rek moo ko créer une association ça se crée pas uniquement du société anonyme tout ça la du kii hmm. il faut un groupe de personnes donc il fallait que ñun ñu def benn assemblée générale mu am PV parce que bi ma demee ne gars yi dama bëgg a benn affaire au niveau de kii dañ ne ma pour mu am acte euh, kayit parce que j'ai pas voulu que mu nekk affaire bu informel. oui. ay xale la ñu woon amoon nañu ay vingt ans amoon ak yooyu. mais dañu mm-hmm. bëggoon mu nekk affaire bu. am kay mm-hmm. bu formel bi ma demee laajte ji dama léegi il faut nga am ngeen def assemblée générale. am PV. Euh, am acte de reconnaissance. boobu nag moo doon li nga xam ne moo difficile woon. kii dina xam li may wax parce que moment boobu ñu ngi nekk jamono super jamono nekk benn groupe boo xam ni comme li mu doon wax sànq. Mm-hmm. awul chef awul kenn Bob Sène moo doon chef d'orchestre et il signait les contrats dans sim voiture Simca benn Simca bu gris bu yoroon papier jamono ci rek ci ginnaaw la nekkoon. non je te jure. la le trésorier. la trésorier <laughs> tous les lundis. nga ne lundi. bu <laughs> weekend bi jeexee ñu lundi la ko wax lundi nga jaar ñu fay. <laughs> ca local Grand Dakar. keroog koño koño. koño sama koñ. donc noonu la demee. Mhm. donc il fallait que bi ñu dajalee kayit yëpp mu dese ñu acte de reconnaissance bi. moment boobu may jàngee Blaise Diagne man je faisais la première. mais damay gàddu sama saak su ma jógee Blaise Diagne dox ba Grand Dakar local dem toog ci grand yi di jéem a fexe nu ma amee affaire bi mais comme j'avais un Lamine abe AB boo xam ne daan ñëw HLM. waaw Lamine Faye moom doon ak Bob Sène ñoom dañ ma doon jàppale. Mhm. pour ma ut nu ma amee affaire bi. mais il fallait l'aval de de tous les musiciens. Mhm. en l'occurrence y avait nga xam ne aussi te le leader tamit. quasi même bu dee. amoon na moo waaw. mu mhm. am jour boo xam nag ma fekk la ñu toog ñoom néegu làpp comme benn booy nga boo xam dañ lay yónni ngay dem di ñëw yooyu c'est normal am benn maa doone boo xam ma indi benn fulla ak fayda nag ñoom ñëpp ñu toog rek man leen grand mun naa man leen grand man li may dox pour yéen la c'est dans votre intérêt dama ñëw pour créer benn affaire boo xam ne lii ak lii les grands yi déglu ma nag moment boobu bu ñu ma dégloo benn 10 minutes 15 minutes parce que ñoom loolu lañ doon dundee football musique foo leen fekk football la ñuy waxtaanee di jouer musique mais jour boobu 15 minutes ñu déglu ma bi ñu ma dégloo waxtaan ne ok on va le faire ils ont donné l'aval Bob Sène ñëw HLM signé ñu acte de reconnaissance et c'est parti. macha allah et comme ça est né AFSUD. waaw doon la juddoo mais nag quand même après mu am nag ay. waaw du yeneen suite <laughs> mais si yoo xam ne après. man je l'ai je je je j'ai jamais été président. Mm. j'ai voulu vraiment assurer les trucs mais après trois ans après il y a eu des générations Ousmane Faye. parce que ay cellules la après HLM la ñu créé ay comme Liberté en tant que fans club af sud vous gagnez quoi à l'époque non le but. c'était de le super d'accord. passion la. Omar Pène la ñu bëggoon soutenir le super jamono c'était juste ça. jàppoo parce que bañ nañu ba solo bi njëkkoon am. boo gisee carte de membre bu njëkk bi carte la woon. déggoo jàppoo si jàppale jamono. ok. noonu la woon naa dara ñun ñoo doon jël suñu xaaj ba léegi ñoo jël suñu xaaj di ko ci defal je ba léegi ñun 24 décembre bi passé def nañu. waaw grand bal des ñu amal benn jox ñu. ñun nous sommes des nga ay kii la ñu. donc pour terminer rek moom mooy loolu la muy dox ndànk-ndànk. d'accord Ousmane la génération de Ousmane Faye ñëw après ba. nationaliser ko ak jëm parees yi. oui international national c'est ça. après création wu cellules yooyu mooy bu Liberté 4 après bu Guédiawaye Parcelles Colobane des trucs comme ça. après mu am bu sous région bi Gambie des trucs comme ça. Euh, am bu international bi comme ñoom parees yi et jusqu'à maintenant. af sud bi ngi dox. très bien donc dafa am dafa am barke. et puis aussi ñu xam lan ci af sud parce que à l'époque mooy booy étudiants yëpp tey ji yàlla def na ñu bëri ñuy ministre la ñu ay cadre ñu ay DG xam mm-hmm. donc af am na lu mu créé <laughs> ci réew mi <laughs> ndax booy yu bëri tey dañu am doole ci réew mi. Eh? Euh, Paris yi bëgg naa nga nett lu ñu benn anecdote yow c'est vrai que yaa ngi doon jàngee. Imam Moulay Imam Moulay. Mm-hmm. Omar Pène sa première venue là-bas comment ça s'est né bon Umar Pène bon xam nga temps yi dañuy nekk benn rêve parce que temps yi soirée Fosco yi foyer yi mercredi yi la ñuy joué Lamine Gueye Blaise la Delafosse autre chose mais xam nga ñun banlieue bi rek gars dañu doon ñëw ville. waaw mais benn instant gars yi daaw ñu àgg si daaw si banlieue bi. c'est ça mais ñun boobu ñoo ngi nekk élève ñoo ngi nekk collège bi ñu ñëwee lycée Limamoulaye yàlla def benn instant mag Dame Diouf Prince léegi booy salut passage Dame Diouf Prince moo ngi moom de Afsud la mais léegi moo ngi Belgique. man Dame Diouf Prince ñun ñaar ñëpp ñu nekk foyer ñu war a organiser assise national des clubs d'économie yoo xam ne waa Saint-Louis dañuy ñëw waa Kaolack dañuy ñëw waa De La Fosse Lamine Gueye ak jumelage entre le lycée Limamoulaye ak waa lycée Djignabo bu Ziguinchor comme on n'avait pas les moyens ñu ni non dañuy organiser concert super jamono pour la première fois en 96 95 ñun ñoo njëkk a indi lycée Limamoulaye euh, le super jamono mais comme super jamono mënul woon comme ñun. lycée Limamoulaye aussi on n'avait pas la chance comme les autres lycées bâche biir parce que lycée Limamoulaye dafa rëy. waaw il fallait ñu dem stade Amadou Barry. bon. ngeen yóbbu ko foofu. ñu yóbbu stade Amadou Barry super jamono gars yi ñëw bi ñëwee ñu joué bi ñu joué xaalis bi ñu xaaroon amul. mais bi ñuy compter ndeysaan xaalis bi benn gain boo xam ne Malick Dieye moo gënoon kii ci gars yi ñuy compter compter xaalis ba ci yàgg xaalis bi xaw a manqué quoi. ñu ne ko mais grand ñun bu ñu fayee lii duñ dem ndeysaan ak grand bonde ndeysaan. je passage. temps moo nekkoon manager super jamono. Mhm. bon day jékki-jékki daal war nañu ne desaay waaw léegi léegi lii boo leen ko amee ni ngeen organiser seen manifestation. ñu ne amul noo jël leen. Oh. non surtout donc ci yooyu ah donc yooyu boobu Abdou Ndaw ci la ñëw jógee Blaise Diagne ñëw lycée Limamou Laye donc yooyu yëpp ñun boo par loolu dafa bokk te boobu ci loolu bokk na ci li nga xam ne benn défi bu njëkkoon am ñun en tant que mhm. fans. Mhm. nekkoon ay collège lycée Limamou yeneen lycée yi doon tëgg avec le super jamono. Ah. sauf notre lycée quand nous sommes venus seconde première ay terminale yooyu yëpp man ay prince ak yeneen gars yi nekkoon foyer on a tout fait par exemple ak benn fan Khady Thiam mhm. ku ko bëggoon muy waay gars yi di jooy tu vois extra on a organisé le concert du Super Jamono foyer tamit ouverture foyer Omar Pène ñëw xam ne tamit ay fan si ñëw nekk Géejawaay donc euh, tout ça sont des choses de ses fans à l'époque. mais loolu tax depuis yamatul foofa est-ce que xam nga rajo Af Sud am na. <laughs> Kukaan Tamba Kaolack Kaolack. non non ah. Kolda Kolda Kolda Kolda. Ah, ak Boiro hmm. Boiro Abdourahmane suñu benn copain Abdourahmane Boiro moo ko fi créé. fans hmm. club la dëkk côté boobu. mi ngi créé na rajo Af Sud rajo. rajo communautaire tudde ko Af Sud. donc pour te dire que comme li ngay wax naan fans yi. ñun léegi soxlaatuñu dara ah. hmm. am nañ suñu avocat maître Diagne. Uh-huh. Af Sud <laughs> on a des directeurs am nañ am nañ ay boo dem. am na af sud. c'est donc moo tax ñun yi nga xam li salaam di wax sànq ci jàmm ji ñun dañ ko transcender salaam bi muy mbalax muy metti fii ay concert à l'étranger laaj ko ñun ñoo koy fees. waaw <laughs> jàll kay waaw. fan club bi fan mm. club. donc problème pour ñu yëg la yi problème yi ñu am. salaam ñun mënuñu ko xool par exemple comme état mbalax maan wala yenn genre autre mais af sud la. c'est euh, parce que euh. super jamono lañ ko xam. Mhm. tu vois solidarité boobu tey ñun. ci suñu gars yi am nañ avocat. ay ancien AFSUD bu nekk avocat ay ancien AFSUD yoo xam. ay mais yow tu es cadre dans une grosse boîte à Dakar aussi. gars yi amuñu problème yooyu. c'est ça politique beeg. c'est ça genre affaire dañuy daje kële ngi beneen parti yaa ngi beneen parti. c'est ça mais problème bu concert bu amee gars yi dañuy daje. on parle d'autre chose. très bien alors Fatou. Mhm. yow mi nga xam ne jigéen nga. Mhm. te AFSUD à l'époque c'était vraiment les garçons qui voulaient la musique Omar Pène. même boo demee ci moo tax étudiants yi lu ñu gis ñu si ëpp. ñu si ëpp c'était les garçons qu'on voyait yow en tant que jigéen la moo la dugal ci Omar Pène. mais góor góor bu ma nee benn jigéen war a man ñaar rek ñu def parce que ñun dañu wax ne ay jigéen lañ mais aussi tamit dañ bëgg a suñu bopp si lépp parce que lépp loo gis fii jigéen da si bokk. tey jii nii boo gisee groupement féminin bi am nañ ñun AFSUD am nañ suñuy këyit am nañ suñu récépissé am nañ lépp présidente bi moo waroon toog fi bu toogoon fii peut-être dina la gën a expliquer nga gën a comprendre si kii yi comme dëkk loolu buñ ko amee si ñun grace à Omar Pène tey euh, du duñ ne góor ñi rek ñooy dem parce que tey jii nii Afsud lépp mu ngi si mooy comme ni la ko Grand Brésil waxee man mii di waxaayow si Afsud laa sëy sama jëkkër si la boo ko mu ngi ah, nekk Afsud Italie voilà comme loolu rek satisfaire la daal mu nekk loo xam ne nekkatul ay caaxaan quoi waaw dafa nekk loo xamante ne dañ ko bëgg gëm ko ci yéen waaw mu dëggu si ñun ñu ànd si ak fulla fayda depuis boobu parce que début bi doon na metti lu nekk doon nga ko dégg ngay bàyyi say parents mhm. si looy dem mhm. dañu yaakaar leneen moo la yëg or que ne yow li ngay def xam nga li nga bëgg mooy lan très bien alors malheureusement temps bi daf ñu xoj Euh, xam naa ne dina amaat yeneen émission yoo xam ne dinañ ko gën a yaatal ci cinquante ans Omar Pène samedi ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw encore une fois je vous donne le numéro de téléphone pour aller acheter vos tickets 77 657 47 74 Salam Diallo yow aussi yaa ngi waajal benn xeexoo bu rëy. waaw damay fële ci euh, Allemagne dem Allemagne incha allah le 17 février mm-hmm. Stuttgart. All White euh, Independence Ultimate Movement Alpha. dinaa ñëw incha allah samedi aussi dinaa nekk fii. bokk naa ci ñi def première partie. c'est waaye bu tasee damay tëggi sali. ok di la xamal nag sama album day génn ci. février bi. ah janvier ah, donc euh, maa ngi gërëm ñëpp. jërëjëf salaam leen sant di leen ñaanal gudd fan. jërëjëf salaam sama soxna. ca hmm. Amérique sëram dafa gaañu. waaw oh, ah, doomu Ndeye Mali Cissé ak euh, Khady Cissé maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp. di leen xamal daal raxu kontaan naa. waaw Assy kontaan nañ. kontaan nañ Omar yàlla gudd fan. amiin gërëm le président Macky Sall ci jàpp bi mu jàpp Omar Pène. la lu ko nit defal ñun la ko defal. absolument ñun ñoo war dem di defal. ndax moom ñàkkkat la te yow xam nga loolu. baax donc jàpp bi ko jàpp ba nommé ki lu mu ko ko koy gërëmee di ko sant. très bien ah. merci beaucoup Salam Diallo merci Baridi Cissé mm-hmm. merci Fatou Sy mm-hmm. c'est ça non. Mm-hmm. voilà merci aussi Pape Thioune maa gërëm bu baax baax. et nous tenons aussi à remercier aussi Mhm. Ah, ah, et, toute son équipe parce qu'ils ont pu organiser un grand bal des fans le 24. Dommage qu'il n'est pas là avec nous. Et nous remercions encore le, euh, grand Orpen. Tout le super Diamano. au nom de Ousmane Faye. Très bien. Merci, Merci beaucoup, pas. Ousmane Faye aussi. Notez Allez, bien le rendez-vous, c'est ce samedi. ans de carrière de Omar Penn. Ça se fait, venez nous refaire la fête. Et puis on lui dit merci. Sur ce, on vous souhaite une très belle soirée. Le rendez-vous, c'est ce samedi, si Dieu le veut. Bye bye, salut, ciao. Merci à toi, ciao, ciao. déclaration